Djiby Ndiaye maa ngi lay nuyu. waaw Sabine maa ngi lay euh, nga nekk euh, président de la fédération nationale des transporteurs du Sénégal pour le changement membre du conseil d'administration de l'AFTU conseiller municipal à la ville de Pikine déjà ngeen lancé euh, benn liste pour élection législative yi nga xam ne si la ñu jëm lu waral engagement bi exactement. waaw Sabine li ko waral mooy tey dañoo ne ay changements yu métti. te transport dafa nekk ci ay jafe-jafe yu bare bare bare bëri donc ñu am ay ay revendication ñu am ay problèmes yoo xam ne war nañ ko mën a wax autorité yi war nañ ko mën a boole ci programme mu Sénégal moo tax ñu décidé en tant que des transporteurs dem assemblée nationale pour wax suñuy jafe-jafe bañ tenir ko en compte pour euh, état bi ak euh, comment dire lépp li nga xam ne mooy mooy mooy kii état bi mën ci jàpp mën ci mën ci ànd ak ñun ñu xam suñu jafe-jafe ba ñu bañu bañ bañ mën ko régler loolu moo tax ñu bëgg a dem assemblée nationale mooy pénc ndaw réew mi pour wax fa suñuy jafe-jafe hmm. tey jii kon euh, lan lu bees ngeen nar a indi ca assemblée nationale bu fekkente ni askan wi jox na leen ay député li fa war a indi mooy par exemple li ñuy wax la convention collective des des dans le secteur des transports loolu dafa nekk loo xam ne voté woon nañ ko depuis les années soixante dix comme a changer adapté ko lu bees li nga xam ne ak jamono ni muy doxee pour ñu def ay proposition de loi pour euh, euh, état Sénégal changer ko ci taxe yu bees ba nga xam ne transport dina gën a ñoŋ muy benn ñaar bi tamit ñu def ay proposition ci euh, changer système transport bu Sénégal parce que système transport Sénégal boo gisee ni muy demee yàgg na noonu lay doxee donc war nañ ko changer te loolu il faut ñu pour ñu pour def ci ay proposition de loi ak ak changer ko il faut ñu am député ñu toogal ci assemblée nationale pour mën a défendre loolu. donc loolu mooy tax li moo nekk ñu gën moti motiver pour jafe-jafe yi xam ne moom la transport di jànkoonteel ñu jéem ko jéem ko dindi euh, ba transport di def di dem ci condition yoo xam ne condition yu baax la. Mhm. Euh, mbir mi transporteur yi kese la patronat bi wala da ngeen au chauffeur yi ainsi de suite. ah mais bu ñu transporteur kay wax nañ wax yi wax nañ conducteurs yi parce que man bu transporteur amul conducteur du am. Mhm. donc ñoom li ñuy wax nii pour ñoom la parce que tax ñi nekk tey conducteur tey ñoo war a nekk transporteur ëllëg. donc lu leen jëmale kanam kay xanaa ñoom duñ ci duñ ci conducteurs yeeg mécaniciens yeeg électriciens yi ñëpp ñoo xam ne ñooy liggéey ci secteur des transports mbir mi seen mbir la ndax bu transport bi ñu dox mu moom mooy jiitu ci kanam euh, euh, conducteur topp ci parce que transporteur amul si conducteur du am donc mbir mi seen mbir la ñun dañ koo def pour jëmale mbir mi ci kanam donc ñoom ñëpp dañ ci war a jàpp te incha allah ci jàpp te ñoom sax motivation bi ci ëpp sax ñoom ñoo tax ñu ñu taxaw tey pour def loolu. Hmm. est-ce que condition yëpp réunir na pour yéen élection législative mën a am dans deux mois est-ce que xatul voilà. préparation élection législative moom à chaque fois noonu lay demee parce que boo xoolee sax conseil constitutionnel li mu wax lu mel ni ay parrainage yooyu yëpp du am parce que xaju fi mais comme président la république moo am droit moo war a dissoudre assemblée nationale donc élection législative en moom à chaque fois bu ñu ko waxee rek dina am ay manquement waaye du ñàkk comme noonu la demee noonu lañ ko gisee ñun ñëpp ñu dem ci rek ba yàlla lu mu def muy gën. est-ce que aussi euh, euh wu 15 bi nga xam ne mi ngi laaj amul euh, benn jafe-jafe pour si seen côté yéen. ah non yow yaakaaruma ko parce que transporteurs yi xam lu mën a ko si am nañu 15 millions pour déposer te loolu hmm. moom du du yaakaar naa donc transporteurs crédible nañ pour mën di am am caution 15 millions te ko def parce que euh, li ñu jëm li ñu jëm ak li ñu bëgg ëpp na 15 millions te soxal nañu lool donc incha allah dinañ am caution boobu comme ni ko ñëpp di amee. waaw euh, naka nga gisee aussi. Euh, coow bi am si président Diomaye jamono bi nga xam ne mu ne euh, PM dina def DPG le 13 septembre ñu koy xaar le 12 septembre mu ñëw euh, tas assemblée nationale coow li moom mooy euh, njiitu réew mi respecté wul kàddoom naka nga gisee mbir moomu. waaw loolu Sénégalais yi wax nañ ci wax nañ ci parce que président wax na kàddoom te retiré ko te une personnalité comme moom un président de la république tamit war nañ mooy ci loolu comme li ci Sénégalais yi wax rek moom du ma ci yokk leneen. de toute façon. Ah, les gens. yow amoo si gis-gis en tant qu'homme politique. non l'histoire retiendra que c'est une première fois que lu mel nii am Sénégal donc l'histoire retiendra cela tamit sur le plan politique moom mën na ko yàq lu bari ndax cadre président de la République dafa nekk gu fort ba bu ko bu ko président waxee dafa ko war a def. donc ci le plan politique dana ko yàqal lu bari. Mhm. Euh, naka gis attaque gu Moustapha Sy jëmale ko ci PM Ousmane Sonko mu nekkoon koo xam ne mi ngi ko doon soutenir bu baax a baax tey ji nee na mi ngi koy xaar ci élection législative yi ban jàngat nga si am attaque gu Moustapha Sy contre Sonko. waaw man nag Sabine aw ma aw ma habitude du commentaire relation personnelle yu ay nit. parce que mhm. ñoom la leen con la leen concerné ñoom la donc ñoom ñoo ko a régler seen bopp. parce que moom vraiment euh, nekk loo xam ne lu xaw a donc. amu euh, habitude daal di commentaire diggante nit ak nit. Mhm. parce que euh, bokkul ci maandu. Mhm. transport public bi bari na ay jafe-jafe tey jii lan ngay suggérer nguur gi si nekk pour ñu mën ko jooyanti bu baax a baax. ci engagement bi boo ko gisee parce que état bi dafa deful benn programme bu jëm ci transport public. defu ci public surtout privé état bi defu ci benn effort waxagu ci dara boo tax ñu ba engagé wu ñun pour taxaw ci assemblée nationale pour wax suñu programme wax li ñu bëgg bu état bi def ko ba transport bi jëm ci kanam. Mhm. Euh, beneen euh, ponk bu am solo parce que ñu bari ñi ngi xaar euh, dund gi wàññeeku bu ñuy wax dund gi wàññeeku aussi ñu ngi xaar transport bi prix yi wàññeeku bu baax a baax est-ce que loolu mën na nekk à l'ordre du jour wala conditions yi réunirul pour ñu wàññi njëgu transport bi surtout si seen côté yéen patronat bi. waaw Sabine xam nga déjà transport bu Sénégal moom fayuñu parce que prix tarification yi fi nekk depuis 2009 ba léegi kenn mësu ko joyanti te carburant yokku na fi pièces détachées yokk na fi lépp yokku na fi même prix oto sax yokku na fi mais état du Sénégal musul nangoo toog pour euh, changer degré bi ñu changer tarification yi ak tamit ñu koy à chaque fois ñu koy ñu koy ñu koy ñu koy renouveler su fekkee ne am na ay changement donc loolu aussi bokk na ci li ñu gën a motiver pour ñu dem ci assemblée nationale di ko fa wax muy benn ñaar ba mooy dund gi nga xam ne euh, euh, actuellement monde bi moo nekk dans une crise bépp nit boo la wax ne mën naa wàññi dund gi actuellement daf lay nax te naxee nag baaxul am réew boo ci nekkee da ngay wax réalité bi nga xam ne mooy li ñuy wax la réalité des prix. Mhm. c'est important parce que nit ñi boo leen diggee ne di nga leen wàññi dund gi te mënuloo ko tamit day ndax day nekk sa kàddu rek contre lu ngeen xamul te sa kàddu autorité dafa nekk loo xam ne lu ñu war a sàmm la lu war a a ndax bëgguñu autorité di wax di weddi boppam wala autorité di wax te ñu ko gis donc daal dund gi li ma ko gisee nii ci monde bi parce que Sénégal eh, dafa nekk benn village planétaire boo xam ne lépp laal feneen laal ko donc pour changer dund yi actuellement man yaakaar ne dina du yomb te mënul nekk sax d'ailleurs pour yow mënul nekk transport bi aussi mënul wàññeeku c'est impossible si jamono bii transport bi tarification yi baaxul a yokk dañoo war a yokk ah, dañu war a yokk pour yéen dañoo war a yokk tarification parce que lu bari changé na fi depuis 2009 ak léegi te booba léegi état bi waxul donc dañoo war a yokk tarification transport pour que transporteur bi di am ay réserve maanaam di liggéey denc loo xam ne ëllëg dina mën a def renouvellement parc am dina ci mën a def ay jël ay charge am normal tey jii transport bi dafa am crise boo xam ne mënuñu ko sax expliquer. affaire euh, Barça wala Barsaq lan nga si mën a euh, sànni nga xam ni xale yi baree bari ñu ngi faatu si géej gi. ah waa xam nga loolu aussi ay déception la yoo xam ne peut-être yoo xam ne yu ñu am la euh, mais ay tamit damay li ma leen di wax rek mooy àdduna moom kenn du ko yàkkamti xale yi nañu toog ci Sénégal lu mu bon a kus néew di gis seen i waajur seen waajur di leen gis moo gën dem di dee ci géej gi donc kenn du leen encouragé ci loolu lu jot nag yàlla def ko. risque maañ de laay wërsëgu jaam yàlla yàlla bu bindee ni nga am di nga am bu bindee doo am boo de boo doon boo doon rey boobu tamit doo am dara donc daal nañ gëm yàlla xam ne lu yàlla bind seen jëf incha allah dinañ ko am. Hmm. naka nga gisee peut-être dernière question ci euh, état bi ministre Malick Ndiaye ni muy mobiliser à chaque fois Dakar dem dikk ci événement yu mag yi muy euh, tabaski muy gàmmu muy màggal yow naka ngeen gisee mbir moomu. waaw dama ne xam nga ñun déjà euh, boo xoolee màggal gi ñun on a transmettre lu mat ci ay ay ay millions de personnes. donc euh, Dakar Dem Dikk ce n'est qu'une goutte d'eau dans la mer nekkul dara loo xam ne lu mën a ci transport bi la parce que ñoom nee nañ trente mille personnes la ñu yóbbu ci màggal gi ñun on a de quatre millions de personnes donc ñun bi ñu moroomu Dem Dikk dans le secteur des ñun ñooy majeur secteur des transports donc euh, ministre Malick Ndiaye koy wax mu xoolaat feuille de route xam ne transport privé mun ko fi jëlee fi la ko fekk fi la accident yi regret la c'est un regret vraiment ñi ngi ci ñi ngi ci euh, encore une fois jaale ñëpp ñi nga xam ne seen i mbokk seen i mbokk des nañ ci di ñaan yàlla rek yàlla wàññi ñu accident yi ndax accident moom mënul ñàkk ci transport. voilà jërëjëf Djiby ñu ngi lay remercier bu baax a baax. merci beaucoup Sabine merci beaucoup à tous à tous les auditeurs FM. voilà Djibril Ndiaye ñuy fàttali ni yow yaay président bu fédération nationale des transporteurs du Sénégal pour le changement membre du conseil d'administration de l'AFTU également conseil municipal à la ville de Pikine jërëjëf euh, Djibril Ndiaye ci tontu bi nga tontu suñuy